chers internautes très heureux de vous retrouver sur votre chaîne leader sunu People TV l'actualité en temps réel l'actualité chez vous. tey ñu indi leen sunu quatrième numéro replay du buzz replay du buzz toute l'actualité qui font le buzz au Sénégal et partout dans le monde va le sommaire. présidentielle 2024 ce que Alassane Ouattara a demandé à trois reprises Macky Sall. présidentielle 2024 les candidats spoliés Karim Wade veulent bloquer le processus électoral troisième beneen bi mooy Déthié présidence 2024 quatrième mooy l'actualité du buzz chronique de Rita comme ni ñu ko waxee woon ci sommaire bi présidentielle 2024 ce que Alassane Ouattara a demandé à trois reprises à Macky Sall le président Alassane Ouattara suit de près la situation du Sénégal depuis le rapport de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février dernier, le chef de l'État ivoirien échange en effet régulièrement avec son homologue sénégalais Macky Sall. Africa Intelligence rapporte dans son édition de ce vendredi 8 mars qu'il a demandé à trois reprises ce dernier de le pouvoir à l'issue de son mandat. Les deux premières, le 8 puis le 15 février, c'était au cours d'entretien téléphonique. Ce second coup de fil s'est tenu quelques minutes seulement après la décision du Conseil constitutionnel sénégalais d'invalider le rapport de l'élection à la magistrature suprême. Alors que Macky Sall est particulièrement conscient sur le vote des sages et de sa faveur. Les deux dirigeants ont discrètement discuté pendant plusieurs d'une heure en marge du sommet de la CEDEAO à Abidjan. Lors de chacun de ces échanges, le président ivoirien a conseillé à Macky Sall de quitter le pouvoir le 2 avril, date officielle de la fin de son mandat. Résume le média. Macky Sall semble en train de suivre le conseil de Ouattara. Après avoir clamé son intention de ne pas aller au-delà de son mandat, il s'est aligné sur la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la fixation de sa date et de la présidentielle au 2 juin, conformément à la recommandation du dialogue national et fixer la date du scrutin le 24 mars. Deuxième titre, présidentiel 2024. Les candidats expoliés et Karim Wade veulent le processus électoral. Le Fonds démocratique pour des élections inclusives envisage de bloquer le processus électoral. Ainsi, les candidats se sont dit Karim Wade vont attaquer dès lundi le décret du convocation du collège électoral et de tous autres décrets concernant cette élection présidentielle le 24 mars 2024 pour excès de pouvoir devant la Cour suprême avec les de sursis et exécution. Lequel décret il affirme de ne pas avoir vu pour le moment. Il appelle également leurs militants à tenir prêts pour la reporte sur le terrain comme nuñ ko gisee ci titre yi fuñ jëm ci Déthié Fall boo seetee fan yi moom dafa woote woon benn conférence de presse woo sunu naataangoo yëpp ñu ñëw fekkee conférence de presse boobu noonu mu taataan leen ay kàddu xam naa dañuy dem déglu ko doog a ñëwaat. merci beaucoup asalaamaaleykum nuyu toute la presse. bi nga xam ni mobilisé wu na ce matin ñëw fii dégluñu ci waxtaan bu gàtt bi ñu bëgg seet ak askan wi ñi nekk biir réew comme ñi nekk bitim réew di leen remercier bu baax a baax kon ci seen taxawaay ce matin di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu képp ku nekk Sénégal di leen ndokkale ci seen taxawaay bi ñu am boobu ba tey ba yàlla def li xew démb mën a xew ba finalement ñu mën a jàpp une date pour l'organisation de la présidentielle loolu dinaa ci dellu si léegi mais dama bëggoon dellu si déjà ci li nga xam ni moo xew démb assemblée nationale dama jotoon ci wax fii waxoon opposition catégorique bi ma amoon contre projet de loi d'amnistie bi nga xam ni woote nañ ko démb au niveau de l'Assemblée nationale yàlla bu defee ay xew-xew am ay bakkan rot ay dégâts matériels am ci ay laago sax am ci ci réew bu mel ne Sénégal ñu yàgg a xam ci réewu dëgg réewu justice réewu équité nga xam ni citoyen bu mu mën a doon ci kanamu yoon dangeen ngeen fa war a yem réew mi nu mel ay événement am li ma wax léegi yépp am ci ñu ñëw ni dañuy faase loolu loolu dañuy mënul ne dañuy répéter encore une fois que anduñu ci yàggul ay at ci ginnaaw ay chef d'état africain yu bare defoon nanu déplacement fële ca tugal bu fa xew-xew amee ay bakkan rocca dem mastaw ña fa nekk loolu bu amee seen biir réew li ñuy xaar mooy au moins que la justice soit faite la vérité coule avant ñuy procéder muy réconciliation muy pardon lu mu mën a doon li mooy mënuñu lu dul saluer loolu mais day fekk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 bi ma sama benn collaborateur en son temps rappelé ma loolu ma ni ko jaruma rappelé parce que loolu du tax mukk may wax voté leen ci lu ma gëmul même bu fekkee dama ci war sacrifié wu loolu sénégalais yi xam nañ ko ci man dinaa ci sacrifié wu mais du ma wax mukk du ma wax mukk voté leen pour voté leen contre lay wax donc di félicité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 nga xam loolu benn def de la diversion naa dissoudre le gouvernement nommer un premier ministre on le on lui rappelle que moom en 2019 c'est en tant que président de la République qu'il était candidat ça n'a pas été une lourdeur pour lui alors qu'il avait beaucoup plus de charge donc on ne peut pas nous faire croire que c'est pour libérer son candidat premier ministre qu'il a dissous hier le gouvernement. C'est une diversion, une tactique politicienne, parce qu'il connaissait d'emblée le revers bi nga xam ni jot na ko venant du Conseil constitutionnel. Et il ne voulait pas aujourd'hui justement que les titres consacrés wu spécialement spécifiquement ci revers moo tax mu dugal dissolution gouvernement bi dugal un premier ministre ñu koy wax. Et ça a toujours été une revendication de toutes les oppositions qui se sont succédées. On veut un ministre de l'Intérieur neutre, indépendant et consensuel pour l'organisation de cette présidentielle. D'y appeler tous les Sénégalais à la vigilance au niveau des bureaux de vote, à la vigilance sur le terrain, pour que li nekk ci xol yi li nekk ci xel yi li nekk ci dënn yi mën a génn bis boobu ci urne yi l'intérieur buy njuuj njaaj nañu indil un ministre de l'intérieur qui est à la hauteur des enjeux du moment parce que danu génn ci période bu trouble une période électorale trouble il ne faudrait pas à travers les pratiques de l'organisateur des élections le jour du scrutin mu plongé waat ñu dans une page beaucoup plus trouble que page préélectorale et donc ñoo ngi mettre en garde le président de la République sur cette nomination et lii may wax je suis très à l'aise parce que lui en tant qu'opposant en son temps disait également la même chose et vous étiez là. Donc, il n'a qu'à faire en sorte que qui nous donne une personnalité neutre et indépendante. ñun ñoo ko déggandoo li président Déthié Fall wax que ne dialogue bi mi président woote woon pour moom amul woon benn njariñ ba tey tamit projet de loi boobu ñu doon votel à l'Assemblée nationale pour Amnesty moom nee na àdduna du neex ba mu kon ba mu votel pour moom contre rek lay votel parce que dafa am loo xam ne nee na dafa yomb du man maay wax di ca mooy wax nee na dafa am yoo xam ne dafa yomb ndax ñiy dee manifestation yëpp après bu ñu voté procès boobu noonu mooy ñëpp nul lañ ñëpp ñàkk nañ que est-ce que loolu noonu dina baax si njaboot sa mboot yi xam ne ñoom perte nañ seen proche si manifestation boobu noonu moo wara moom dàq na dàq na procès de loi boobu noonu waaye tamit waxaale na tamit itam ci élection 2024 mooy 24 mars 2024 mu am heure boobu mooy date boobu bu amee wala mu ñu jëlaat beneen dat moom yëpp fekk na pare na moom si gàttal mooy wane le moom dévoué na pour date boobu pour une nouvelle ère présidentielle 2024 kon moom pare na partisan mi tamit pare nañ waa ñu jàppee ko noonu tamit xam naa dañuy dem sunu dernière rubrique mooy chronique du buzz chronique du buzz comme niñ koy defee rek dañuy invité waxtaani ji ñu jokkete ñu won ñu génneel ñu yenn kaay kon xam naa dañuy topp sunu chroniqueuse bi xam ne ci kër gi la nekk muy Rita Paradise ñu dellu si waat xarit waaye jël seen liggéey def ko àndandoo ndax nee naa la lu dul liggéey liggéey ko gën waaye ay kaa ay détail ay jokkoor maajoor jokkoor leen am ndiay indi jóob gi gi nga xamante ne moom la sénégalais yi doon def jigéenu Afrique yi doon def di di nekk di def nii ñu daal di koy jël teg ko ne parce que nee naa la loolu jëmaluwul réew kanam te loolu dafay yàq images nit bu ko defee jigéen ñi ma di leen ñaax di leen ñaaxaat ngeen góorgóorlu ci waar wi ngeen nekk bàyyi leen xuloo boo xeex beeg détail yeeg wax ju sew jeeg wax ju bëri jeeg yépp jël leen ko teg ko ci suuf ndax nee naa leen amul benn njëriñ te jigéen mooy nekk yaay te nit da ngay am fenn fooy toll foo xamante ne sa doom xale yi léegi ñoo gën a bëgg internet bi imaginel sa doom di xool ci internet bi ba dajeeg vidéo boo xamante ne yow ñu ngi la cay saaga ay ndey wala ñu la cay wax wax ju ñaaw wala ñu nga la ca yegg njaajaan njaay rafetul te jaaduwul jigéen ñi gëm leen seen bopp te nit ku la motul nawle warta doon sa gaynde nit dangay ànd ak sa nawle ànd ak sa ka nga xamante ne yéen ñaar xëy na kii gis nga ne am na jikko yu rafet yu nekk ci moom nga ànd ak moom waaye fekk nit koo xam ne kenn nawloowu ko kenn buggu ko kenn lijjantiwu ko yow nga ñëw di xaritoog moom ndax la bëgg yaa ma neex ak bëgg di détruire nit loolu baaxul ku la matul nawle warta mat sa gaynde dee leen ànd ak seeni nawle nawlaas nawloo dafa baax ku nekk na ngay ànd ak sa nawle rafetoo leen tey def lu rafet lu ñaaw jarta roy lu ñaaw jarut nga di ko jàng lu ñaaw jarut sax nga ko toppandoo te nit ñi léegi dañuy roy ba dàq nit ñi léegi dañu complexe ba nga xamante ne yu bari seen complexe moo leen di duggal ci ay affaires yoo xamante ne da ngay dem ba di ko rëccu yow ba ñu tiim say yaay di ko saaga ay ndey dara jaru ko gëm leen seen bopp xarit jarta wut àndandoo jarta wut ku nekk jëlal sa liggéey def ko xarit def ko àndandoo def ko wéeruwaay boo ko defee xoola jàmm ngay am liggéey yi wàcc sangu ba set toog sa kër naan salu sedd lekk sa lu neex dara dàqu ko ka ngay xaritool bu dee am ama tax ngay xaritoog moom boo defee na mu def di nga am bu fekkee oto ba muy dawal tax nga xaritoog moom boo góorgóorloo ci kàttanu yàlla yàlla lay may oto bu fekkee or ya muy tàkk la boo góorgóorloo am ca or ya eela eh kama sala naaxira atoy sa sabali bref yow nag eh, yow xaw ma nuñ lay woowee noon man sax du ma jaati sa tur ndax ay pitax yoo xam ne tekki wuñu ci àddina dara tekkiwu leen démb ak tey tekki leen ko yow xam nga ne ñi taxaw sax naan yow yaayu Wally Seck nga saaga ñooñu ñooñu yàpp waaw ñoo déggandoo Rita Paradise déglu nañ tamit li mu wax yéen tamit dégg ngeen li wax que ne jigéen daa war liggéey def liggéey muy xaritam def liggéey muy àndandoom te bàyyi nit ñi wala di xaritoo koo xam ne dalee lenn kii du xaritoo wala du nawle nga ànd ak moom mu lay dugal si tuxu duna yi mooy waral ngay gis problème yi ngay gis yëpp muy am ci réseau sociaux yi ñu ma doon wax tapage tiktokers ñuy gis ñenn ñi di yàq ñi di ñàq ñee camp bi far fii camp bee far fee ngay gis audio yi di fuité ainsi de suite ainsi de suite est-ce que yooyu tamit jar na ñu koy bàyyi xel xam naa dañ leen di jox dig daje ba beneen yoon tamit ci beneen chronique ñi ngi leen di jaajëfal topp bi ngeen di topp sunu People TV ak seen mbokk Safen Pro jaajëf